mais est-ce que tegoon na si ay mise en garde maanaam boo fa luubalee lii moo la ci fekk comme suñu nguur gu bees kii li mu wax. lii ma lay dañoo bëgg changer. Ah. système. waaw fi ñu lay yóbbu. Mhm. Euh, lañ fa bëgg. mooy nga mhm. jubal fa. Mhm. boo fa dëngalee. danañ la fa jëlee danañ la yóbbu ci yoon. weesu na loolu. Omar daat xëy toog ci penc ma ni leen. Cham kañ wax Walid moo fa ne. ab saay saay la. ku ñu wax xurrata moo nekk misra moo nekkoon misra ab saay-saay la xajaaj moo nekkoon xiraq ab saay-saay la Usmaan ibnu Xayaan moo nekkoon xijaaz ab saay-saay daal nit ñii ma wax nag ñoo fees dell la suuf akuk dëngte akuk mbon danaa leen fa wàccee te keneen ku fa toogaat bay boo nga xam sa bopp ah. léegi nag loolu lu ko waral bi Omar di toog dafa fekk ay azma iqtisadiya crise politique azma maliya crise de finance isma axlaaqiya crise crise de valeur moo fees dell dëkk ba ba lu neex waay wax lu neex waay def fu waay fu neex waay jàggee gàttu jàmbur yóbbu mbaa nga weewi fasu jàmbur yóbbu ba mu dikkee nag la taxaw ca kaw ne leen lim ñii ma wax léegi ni leen ñoom ñooy saay saay yu kaw suuf imtalaat al ardu wallahi jawran suuf saa ngi fees dell ak seen caay-caay gi waaye danaa leen wàcceete te doonu yéegati foofee la jóge moom Omar daal di indi nag benn feuille de route def plan pour tabax économique bi tabaxin woo xam ne bul fàtte delloo nañ alal ya ba trésor public fees ña koy ña ko sàccoon ñëpp ñu tëj leen teg leen ci yoon islaax la redressé économique mënut a passé loolu sëñ bi ñi fi bëgg a ñëw bees mu ne leen bu ngeen demee na ngeen wuteeg ñi fi nekkoon ndax yàlla li fi bëgg a ñëw wuteeg li fi nekkoon kooku islaax la muslix la lu mu def daa ne nag li may def ci saa bopp laa koy tàmbalee sama njaboot mën na maa bàyyi ñëpp Omar weesu na foofu korite am na doomi ministère yëpp kenn ku ne solo robb mbaa nga sol sa xaftaan noonu laa ko mën a waxee pour ngeen dégg ko parce que adab tamthil yi dafay baax suura suura photographia bi ñëpp àggee doom ji taxaw jooy Omar ne ko yow day yowee doomi buur te amoon loo sol doom ji noppiwaat dem dikk ne ko papa lu tax amul lu ma sol mu ne ko sa papa de daa ragal sawaraw ëllëg moo tax mu ñeme ñàkkuk tey doom ji ne ko papa kon jër may ut lu ma sol c'est mu ne ko waaye nag xaaral tuuti doom xam nga doom doom dafa neex mhm. mu ne xaaral ma dem ci ki nga xam ne moo yore trésor public mu mu mu defal ma benn chèque ndax man li ma yoroon man par weer du fekkante mais su ma fayoo sama salaire bi ñu jëm danaa ko fay lim may bëgg abal ma jënd la ci robb ba mu demee wax ko ka ca trésor daf ko ne kan moo la ne da nga dund yow ba weer wi dee ba ngay am ba ngay rek Omar jooy ne ko waxati nga dëgg de kan moo la ne da nga fiy dund ba weer dee ba ngay fay sa sa sa sa payoor bi ba ba di ma fay Omar dina ko ba ko di si mbax si mbaxi ak jooyam mas ngaa dégg loolu moo tax lii ñuy wax nii kenn néewul mi ngi fi woon waaye wax ji mën na ko fee indi léegi nag Omar bi mu ñëwee kon ci ñooñam la tàmbalee ne soxna yi nag dama nekk ci ay activités yoo xam ne daf ma sonal ku fi bëgg a nekk di noos ñu naan première dame ak doomi président de la république mel ne gayndeek mbokkam yi bañ dajee gaynde dafa woo mbokk euh, gouvernement bi ni leen mankat kat sama mandat dafa jeex ñu ne ko waaw mu ne dama bëggoon nag léegi gouvernement bi génn ci ak royaume dikk ci ak républicain ñu am président de la république ah léegi ma bëggoon ne yéen ngeen waxal ma ci xalaat til nga fa ak bukki ak lëg ak ñoom seen ah bukki daal ne ñokkee ne ko son excellence mu ne ko ah mu ne ko dañuy teg lépp ci yoon ñu wata ko ku gañ moom ko gaynde na ko ni na ko aw rëkk faaj mu daal di eh, faatu fa saasa ñu ne till waxal mu ne ko non son excellence déglu ma bu baax mu ne mu ne ko sun sun sun sun bàyyi gaynde la ñuy tegaat ci pouvoir bi ba ci digg ba sun yaay première daam ñu def ko muy sa ministère ndax dafa baax sun sun doomi sun doomi président jii ñu jox ko ministère de <laughs> intérieur mu ne ko foo foo jëlee xalaat bu rafet bi mu ne ko léegi laa ko jëlee ci décret bi <laughs>